Euh, sëriñ Aliou Barham Niass salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Babacar. ñu ngi lay euh, gërëm euh, ci teewaay bi. di la dalal jàmm di nuyu Georges. am na tund wu ñuy nekk ci Kër yow lañ tànn ngay wax ak état beeg bànqaas réew mi nguur gi. yaa mm-hmm. ngi ni waajal ndajem dina gu mag goo xam ne at mu jot da ngeen koy amal di ci waxtaane yu am solo dinañ ko waxtaanee. Mm-hmm. waaye bëgg nañ njëkk xam ba xam dëkk ba itam la ca war kilifa yi ginnaaw yaay wax ak ñoom la ca war kilifa yi ña ngi koy defam déet alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu Babacar di nuyu Georges di nuyu mboolem auditeur ak téléspectateurs yi ñuy topp ci RFM ak TFM di leen gërëm bu baax di rafetlu invitation bi di leen nuyu di leen jottali na nuyu sunu kilifa alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Serigne Mbaye Niass di xalif Madina Niassène Kër Madiabel ak mbokkam magam alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass xaadimul umma di xalif général. Eh, li nga laaj ndax eh, autorités yi ñu ngi taxaw di def seen wareef ci Madina Niassène Kër Madiabel laaj la boo xam ne mun nañ ci tontu ci ñaari anam bu njëkk bi mooy ñi ngi ci. gorlu ñi ngi def lo xamne ne wax deug mën nañu wax ne yaakar mu ngi tabbi parce que su fekke ne da nga am soxla dem ci ki ñu denk soxla si ñep wax ak mom ci soxla soosu li jot mu defagum ko leneen li ci dess mu digg ko nga and ak mom diko def pareegut su boba sa yene mun na rafet ak sa ñortu ci anam googu si beneen wàll su fekke ne soxla yi dafa bare lol te nga yàgg cee wax te lépp sotteegul su boobaa yi ñu toll te di ko def yooyu ci ngay tontu ne alhamdulilah yeneen yi nga xam ne egguñ ci nga continuer di ci wax ak kilifa yi ci tënk daal ndoolu lañu ñu mën a tënkee seen taxawaay ci ñun. Hmm. yoonu fay jëm ak yooyu dégguma ni neexul lool itam. waa alhamdulilah xam nga euh, Medina Niassène Kër Madiabel dafa nekk ci Kër Madiabel ci boppam Kër Madiabel alhamdulilah état du Sénégal góorgóorlu na ba mu am yoon ñu nag ci waajaayu liggéeyu diine bi nga xam ne ñu ngi koy def sàkkoon nañ ci état bi benn euh, voie de contournement est bu nekk ci Kër Madiabel ñu defaral ñu ko loolu nag wax dëgg ñu ngi leen di topp waaye yàlla def na sotteegul. Mhm. Euh, xam naa teggin képp moo tax ngay waxee nii waaye manqué manqué yi moom wax dëgg yàlla sëñ bi bëri waa xam nga su fekkee ne dañu dajaloo fal ay nit teg leen ci suñu kanam euh, ñu utuñu suñu soxla yëpp fokk ñu ni tamit ñu am euh, yërmaande ju toll ni jéggal leen yenn yi saa yu ñu demee ba gis ne am nañu yéenay matal su boobaa li ci des ñu topp ko ak ñoom di leen ñaanal yàlla di leen gunge. Mmh, xam nañ euh, diwaan yi nga xamante ne fa la diine gën fës. Mmh. cité religieuse yi. Mmh. nguur gi am na ci ab programme. gis ngeen seen bopp ci programme googee ndax dana mën na tax diwaan yooyu suqaliku bu baax. waaw programme la boo xam ne am na solo wante ñun nag ba fii may wax ak yow dégg lañ ci jot am. du tekkiwul ne dañ ko itteewul itteewul nañ ko waaye te yàlla dogalut ba léegi mu sotti ci sunu su suñu barab ñun nag xam nga ay sufiyanke lañu saa yi ñu amee soxla ñaan yàlla la ñuy njëkkee suñu noppee ba pare door wax ak jaamam ñi. donc su fekkee ne suñu soxla sotti na ku mu sottee ci sa ñu sant la bu sottiwul tamit ñu continuer ñaan yàlla loolu mooy suñu philosophie quoi. Mhm. dëkk ba lu muy tekk ci taarixu Niassène. soo waxee Medina Niassène Kër Madiabel cité religieuse la boo xam ne ku ñuy wax Cheikh Seigne Baye Niass di rakk ci morom Cheikh Ibrahim Baye Niass moo ko ci en 1944 Cheikh Sëñ Baye Niass moomu nag laaj nañu taxaw ci moom tuuti doom la ci Alaaji Abdoulaye Niass mu ngi judd 1905 génn àddina 1973. wante dafay doom joo xam ne bi mu nekkee rakk ci Baye Niass bokk ak moom benn baay seen way jur alxaaji Abdoulaye Niass daf leen boole woon ñoom ñaar bi Mawlana Cheikh Ibrahim di oote fayda tijaniya bi nga xam ne moo tax ñu naan Baye Niass en tant que tel mooy ki nga xam ne moo ko njëkk uyu ànd ak moom ci oote boobu Mawlana Cheikh Ibrahim tamit ànd ak moom mu jël initiative yu bare nag ba ci sañ ci Medina Baye bi initiative bi ci ndigalal Baye moo ko jël euh, bi nga xamee ne dem na ba nga xam ne liggéey bi yaatu na moo proposé Baye ne ko xajatuñu fii ci kër El Hadj Abdoulaye Niass cinquante mètres donc ñu dem sanc Medina Baye bi ñu demee Medina baay xaj tam euh, xat tamit. jóge lew nañu seen tam Medina Baye tam Medina Baye bi hmm. Medina Baye xatee tamit moo ko proposé waat ne tasaareel taalibe yi. loolu tamit bi taalibe yi tasaaroo ci biir loolu ay gannaaw ay wàccuwaay yu mu am ci la mujj en 1944 mu wàcc kër Madiabel toog fa ci ndigalal baay di fa di fa di fa di fa oote diine di fa jàngale di yare di tasaare li nga xam ne mooy li tax Sénégal am jàmm jumel ni ci wàllu diine mooy lu ñuy tuddee tasawuf nga xam ne mbir la moo xam ne mu jara ittewoo la ci jamono parce que moo def réew mi ni mu mel donc mhm. ci tënk Medina Niassène Kër Madiabel Cheikh Serigne Ba Niass moom moo ko sanc ci ndigalal magam sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass muy dëkku diine boo xam ne depuis 1944 mu ngi fa. 1973 hmm. bi mu fa jógee doomam sëñ Barham Niass suñu way jur moo fa ñëw nekk fa 48 ans mais kooku dafa dafa dafa laaj ñu ñu taxaw ci xilaafaam dafa def lu am solo. 48 hmm. ans de xilaafa. mais bi muy dem dafa bind ci ay testament am ne lépp loo xam ne dama ànd ak taalibe liggéey ko loolu mbooloo mi ñëw ko moom sama benn doom du ko donn ndax man du ma dajale nit ñi ne ñëw leen ñu liggéey ngir yàlla ñu indi seen alal def ko ci.

ñu profité itam euh, waxtaanee ci wàllu xilaafa ci këru diine Sénégal yi. Mm-hmm. ndax ñëpp sunnay Muhammad alayhi salaatu wasalaam la ñuy topp. Mm-hmm. ci wàllu ndoona kilifteef ak xalifa. Mm-hmm. Euh, yonent bi moom euh, ba muy dudd. na mu tërale woon affaire yi mooy doomam du ko doon mbaa mbokkam. lu tax tarixa yi ñoom ndono gi. ci diggante bàyyi rakk doom lay lay lay demee. waaw mën nga ko expliquer ci xam-xam. waaw xam nga yonent Yàlla sallallahu alayhi wa euh, ne doomam mbaa mbokkam maanaam moo koy moo koy moo koy donn dàqul loolu aussi dafa fekk ne yonent bi sallallahu alayhi amutoon doom ju góor xam ne dund na ak moom ba ba ba ba ba mat góor. mooy yoroon yoroon itam ay mbokki deret. waaw mais mbokki deret tamit xam nga lislaam foog nga comprendre ni mu demee lislaam euh, diine la joo xam ne diiney maandu la. te Abu Bakrin Siddiq radiallahu anhu bi mu ñëwee ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaar ak moom foo xam ne su fekkee da ngay jàng soufisme da ngay comprendre ne kii xilaafaam démarré wul gannaaw bu yonent bi demee parce que Aboubacar mooy ki nga xam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay moom la ko yàlla boole ñoom ànd ñoom ñaar ñuy ànd nekk ci ay coono ak i jafe-jafe ba teeri madinatu moo ko ñu ko voilà donc bi bi bi di dem tamit maanaam bu dul dara rek psychologiquement bi yonent bi demee mbollem saaba yi fa nekkon ñep dañu perturber wu seuf abou bakkar radiyallahu anhu lool rek jox na ko luy tax ñu comprendre ki mo moo ay doon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam maintenant li xew Sénégal te ma jàpp ne salaj bi foofu la bëgg jëm man le fait nit doon wayjuram ci khilafa wala yu mel nonu loolu soko analyser deug deug da ngay fekk ne peut-être lutax mag ñu ci rew mi jël ko c'est le moyen mal yagul nak parce que man mi di wax ak yow sama wayjur Sëñ Barham bi ko Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass di samp mu nekk xalifa Cheikh Sëriñ Baye Niass suñu maam boobu magam mu ngi dund donc du règle boo xam ne dafa général mais parfois c'est le moindre mal su fekkee ne ñëpp am na niveau buy tax ñu conduire yëf yi te ki nga xam ne dafa amee xilaafa diin dafay manager te management dafa am léeg ay réalités yoo xam ne su la wéree ne boo teggee lii jàmm mun na faa doxee ñàkk te boo ko fi defee tamit yëf yi mën naa continuer parfois objectivité mooy tax dañuy bàyyi ñu continuer mais du règle pourtant mag ñi daan nañu am ay talibé yu sax lol ci sen seen tarikh euh daan sax seexal ay nit ndax sen martaba mo tollu toll euh mais terewul ndonok xilaafa yi mom euh ndonok deret la donc ci si ñun demeewul noonu parce que so gisee Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu Baye Niass ki ku njëkk doon nek xalifaam Sidi ali Cissé miñ ma tuddé du domam dëgg la boobu doomu Alaaji Abdoulaye Niass mu ngi toog jox naa la léegi exemple ci man kër gi ma bokk kër Cheikh Sëñ Mbaye Niass sunu pays sama waajur Sëñ Barham bi muy doon xilaafa magam mu ngi. waaye xam nga ñeseen yeeg siisee siisee nii tam ay bokk. waaw mais jox naa la bu gën a palpable mooy ci sama bopp jox naa la le man suñu waajur Sëñ Barham bi muy doon xilaafa magam Sidi Mouhamad mu ngi teew. Mhm. donc euh, léeg-léeg dafa am loo xam ne mu bare bu mu tax nga foog ne. Euh, dafa nag. li ñuy waxtaanee nag ci ci ci gàmm gi ngeen waajal la nag tam ndax soufisme. waaye effectivement hmm. waaye man damaa topp rek sa sa laaj yi. di ko hmm. tontoo noonu. <laughs> waaye li ma li bëgg nga xam ko mooy du benn règle door mais su fekkee ne ku man te eyoo ko mu ngi fi su boobaa doo dootuñu tenir compte ci doomi waa ji la wala wala wala nakatu ci ko loolu mooy li ëpp solo. Hmm. Euh, bu ñu wax bu ñëwee ci ci gàmmu gi. soufisme boobee ngeen tànn ren. Euh, lu lan mooy sabab li. waa xam ne dañu nekk ci jamono joo xam ne li yàlla waxoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, lu mat a fàttaliku la yàlla def ne woon yonent bi su fekkee ne affaire yi nga nekkat li ñuy def leerul ci yow lenn rek lañ ciy tontu mooy ay sos la yu yàgg soufisme yi tamit ci jamono jii ñu nekk dafa bare ci nit ñoo xam ne dañ ciy dugg te li wér mooy comprendre uñ ko wala boog suñ ko comprendre am na malhonnêteté bu nekk ci ñoom parce que soufisme mooy lan soufisme euh, am na firi yu bare waaye benn boroom xam-xam bu ñuy wax Zaruq daf ne d'après deux mille definition yu mu gis ci soufisme lu mu jàpp mooy yëpp dafay dellu ci ne soufisme mooy dëggal sa jublu ci yàlla loolu mooy ak sufiyankew dëggal sa jublu ci yàlla nag mënul am lu mooy ci topp alquran ak sunna waaw ngir wala yoon école spirituelle boo xam ne kenn munu cee mu munuñ la cee accepter comme koo xam ne yaa ngi ci lu mooy da sa sa sa jublu ci yàlla dafa dëggu te dëggu gi mooy da ngay topp alquran ak sunna si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa boobu école munul nekk école boo xam ne dafay indi ay jafe-jafe. ndax da ngeen jàpp ne confusion bi dafa bëri léegi. bare na trop parce que surtout ci Sénégal da ngay gis euh, nit ñi euh, daanaka mooy euh, concept boo xam ne ni de furtu la maanaam nit ki fi mu ne ku ne lu muy def rek daf cee jaxase. du soufisme ci boppam waaye sëriñ sëriñ si nga xam ne ñoo représenté yoonu soufisme benn exemple da ngay gis nit koo xam ne dafay génn ci teleem bi bëgg jaay ay gabar wala mu bëgg eh, ay garab wala mu bëgg def ak njabar mu indi benn photo sëriñ teg ko eh, ba ñëpp gis ko defe ne njabootu kii la mu soloo noonu ba pare te moom li muy wax ak li lislaam di di di di di digle comme yàlla ak yàlla xam nga finalement kii gis rek te image la xam dafay mujj jàpp ne man photo Baye Niass bii may gis wala photo Serigne Touba wala photo El Hadj waa ji di wax ci loolu la nekk fekk waa ji li muy nekk lislaam daf koo dàq aslan léegi nag yow amuloo itte trop ci gëstu da mujj jël jëfiwaa ji askan ko ki mu wane fotoom wala ki mu solu nuroog moom wala ki mu oote woon ci njabootam la bokk jafe-jafe yi ëpp ci ñuy attaque soufisme ci yu mel noonu lay tëdd su fekkee ne nag dem nañ ba toll foofu dafa laaj ñu taxawaat leeral lan mooy soufisme soufisme ni ma ko waxee sànq du dara lu mooy dëggal sag jublu ci yàlla mooy nit koo xam ne lépp lu muy def yàlla dong la ci jublu te djublu ci yàlla tek ko ci banex bakanam mais méthode bi mi jaar pour djublu ci yàlla moy méthode bi nga xamné yaronte yàlla mohammed sallallahu alayhi wasallam mom la indi ci alquran ju leer ak ci sunna ci yaronte bi yoo xamné ni da fay doli ak leer alquran daf koy firi. est-ce que fiñ ñu toll ci Sénégal da am lo xamné mi ngi menacer soufisme ci ci ci réew mi. waaw am luy menacer soufisme te du lu menacer soufisme rek menacer na l'islam en tant que tel parce que soufisme moy Euh, moy moy moy école spirituelle bi nga xam ni Sénégal mel tay ci jamm ak ci dal ak ci déggo ak ci moko fi indi parce que mag ñi doon jàngale diiné fi ci réew mi ñoom ñoo ñoo fexé ba ñun nekkuñ ay radical ñoo fexé ba nekkuñ ay extrémiste damay joxe benn misal bu ndaw bo xamné pour comprendre Sénégal moy lan xam nga ñun dañu ñew sank wara julli George bi mu xamé né dañu wara julli mo génn talal nañu qibla ji fi la lool moy Sénégal sax mag ñi dañu fexe ba ñun suñu dënn yi dafa yaatu ba ñu xajoo ñëpp léegi nag suñu demee ba nga xam ne nit ñi toll nañ ci jamono. intérêt ma ci nekk nag parce que ñu ngi koy jox addiya. waaw <laughs> qu'importe c'est bien c'est le Sénégal loolu tamit ci spécificité Sénégal la bokk mais su fekkee ne dem nañ ba toll ci jamono joo xam ne nit dafay taxaw jàpp ne ku uteeg moom gis-gis mbaa pas-pas mbaa gëm-gëm yaay noonam bi nga xam ne dafa laa war a rey wala bu fitnaal la problème am na. Mhm. donc loolu moo tax ñu war a. dellu si lu am solo ngay wax parce que mag ñi mag ñi sant taarix yi mosuñoo safaanoo. ñu daan mottalante sax. gën na sax yaatu loolu ba léegi ñi leen fi nekkal safaanoo wuñ parce que lu nit ñi xamul mooy ba léegi xalif général yi ñi ngi wax man damay jox toujours benn exemple lu yàggul dara. Mhm. suñu xalif général Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass xaadimul umma oo na ñun suñu xalif Cheikh Mouhamadul Mahi Sëñ Mbaye Niass yónni ko mu jiite délégation boo xam ne dafa dem Touba ngir yóbbu tontu ci mbokkam. c'est une Mountakha ci délégation bu mu yónni woon ci moom te que c'est une Sy Mansour ñëw na ci moom gannaaw bu Cheikh Ahmed tijani sunu Khalifa, Ibrahim génnee àddina donc euh, dox bi mu ngi am fofu man dama japp ne ben problème lañ am essentiellement moy communiquer wuñ assez wala defuñu la bonne communication qu'il faut. Mm-hmm. wante su fekkee ne nak di nga bàyyi. ñi nga xam ne li ñuy wax dafay lëndëmal nit ñi wala daf leen di indil ay jafé jafé wala daf leen di tënk ci lo xam amalul njëriñ rew mi loolu su yàggee dafay indi jafe-jafe te képp kuy wax ci foo fu ñu lay dégloo war nga bàyyi xel na li tax ngay wax mooy da ngaa taxaw d'abord ci suuf si jàmm suuf soosu nag dafa tudd Sénégal dafa am réalité dafa am ay nit yu fi dund kenn ku ne da am xaq dañoo war a sàmmante ak moom te mag ñi liñ fi liggéey ëpp na nit di xatal nit parce que bokkut ak moom pas-pas wala bokkut ak wala bokkut moom diine Sénégal dépassé na loolu bu yàgg te fu ñu toll mooy Sénégal dafa am modèle diine boo xam ne mën na koo exporter parce que kenn ci Cheikh Ibrahim di compte ay ko ci Adina, mhm. de millions la rew mu mel ko superpuissance ci mbiram tu bi qualifier ci développement pays émergent wala moins développé mais en matière de religion l'islam Sénégal est une superpuissance C'est loolu mag mhm. mais radicalisme bi. djihadisme mhm mi ngi law ci àddina mi ngi dend ak Sénégal réew mu mel ni Mali ñëpp xam nañ ko est-ce que euh, am ngeen xalaat ak i pexe yuy fexe ba euh, du ñu këf ndaw ñi duggal leen ca ñom wa xalaat ak pexe yi ñuy def ci la bok yok suñu communication gën ko jegeel nit ñi fexe ba expliquer deug deug li lan la nit ñi dañu naan exceptionnel sénégalais te duñu comprendre lan nek ci exceptionnel sénégalais exceptionnel sénégalais du dara lu moy ay mag ñu baax ñoo xam ne dañoo fexe ba ay alquran ak hadis yi ñu lay firil fii ci àddina suñ la maanaam fii ci Sénégal suñ la ko firilee ba pare soo dajeeg nit ku uteeg yow ci pas-pas ci gëm-gëm ci diine da koy bëgg parce que da ngay considérer d'abord ne jaamu yàlla la yàllaa ko bind d'abord yàlla ngay mañi fii ci moom c'est différent ak keneen koo xam ne soo demee ci yeneen i réew seen i mag ya fa nekk nañ leen jàngalee diine aaya alquran ak xadis bi la même mag mi firil ci Sénégal nga bëgg lépp lu yàlla bind même aaya alquran bi ak même xadis parfois moom lañ moom lañ leen di firil ba duñ xajoo kenn ku uteeg ñoom ci lenn donc loolu c'est c'est c'est très hmm. xam nga euh, radicalisme bi euh, lu tax ñu junj ko. Hmm. Euh, yii fii xew. Hmm. léegi te daawul xew kenn sañu ko woon léegi gone yaa ngi yaa koy def ci internet bi. songi tarixa Euh, ak euh, yàq lu jéggi dayoo xalifi yi Cheikh Mahi Niass ci boppam. Mhm. ñëwoon na foog naa seen boori tund yooyu. Mhm. amaloon fa ndaje. Mhm. Euh, foog naa tey bañ a seen la wala koosi fu mu doon. Euh, doon ñaawlu euh, wax ju yu bu daw yaram ndax mhm. song ak tag kàddu yu tegginewu lu ñu tegoon ci moom en tant que xalifa Baye Niass euh, yooyu itam gisaguñ lu ko arrêté de mi ngi mi ngi law ba léegi de waaw xam nga àddina moo demee noonu dafa am loo xam ne pour nga comprendre ko foog nga comprendre contexte contexte bi àddina bi toll contexte bi àddina bi toll daanaka nit ñi dañoo allergie kilifa loolu ni ko kilifa politique di subire noonu la ko ñeneen ñi di subire addina bi moo demee noonu révolution numérique nit ñi maanaam ñi war a wax bu ñu egsee ci fi ñuy waxee jafe-jafe day commencé am parce que dañuy wax lu waxuwut su nit waxee lu waxuwut nag keneen dégg ko ci ab ruq gëm ko su boobaa mën naa indi jafe-jafe mais su fekkee ne lu ñu xam ñun ci ci ci ci oote ak ci wax dafa war a tege ci ay alquran yu wér ci xadis yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam yu wér parce que xalaati doomu aadama mun na baax tey suba mu yàqu xalaat yàlla nag du varié du kadib du xewi su boobaa suñu bëggee noppalu dañuy fexe ba kii oote teg ooteem ci alxuraan ak sunna kii aussi lan moo war a doon message yi ci tënk lan moo war a doon message yi ngir ñu maintenir sunu stabilité googu waa message bi mooy yokk njàngale mi ci lan mooy tasawuf parce que Sénégal l'islam yeneen réew am nañ ko mais exceptionnel bi Sénégal am mu ngi ko amee ci tasawuf foog ñu leeral nit ñi lan mooy tasawuf tasawuf mooy def nit ki mu gis ne moom jaamu yàlla la bu paree ci loolu mu xam ne ku dul moom itamit mbindeefam yàlla la ki nekk ci nga xam ne bi ni muy ni muy jàppee boppam ak ni respecté keneen ki defu ko parce que dafa am ci moom soxla mais daf ko def parce que dafa xam ne yàlla mi ko bind bind kii dafa eyoo mu respecté yàlla ci waa ji mu bind su boobaa li muy traité ak nit ñi c'est au-delà personne nit ñi donc loolu suñu ci delloo rek jàmm mën am jërëjëf jërëjëf waxtaan bi euh, am na solo ndax sax fa ñu noppalu ci coowal politique ci réew mi jërëjëf euh, sëriñ Aliou Barham Niass politique baax na nag waaw da ngay dafa mel ni de non loolu ah. wante ci teggiin ñun lu ñu xam hmm. ci teggiin mooy nit def saa yoo nekkee ci am réew da ngay sàmm kilifteef yi fa ne hmm, hmm. maa ngi nuyu monsieur le président de la république xaw ma ko mosuma ko gis pour dalal sa xel je politicien opérateur d'art social le 6 euh, janvier.